5 4 3 2 ñu ngi lay euh, nuyu di la dalal ci sunu People TV. Euh, jërëjëf DJ maa ngi lay fay di am contentement ak mbégte ci dalal bi ma dalal ci sunu People TV. Mhm. Euh, di sant waa Sénégal di baalu ñëpp ak waaye di baal ñëpp ak. Mhm. di sant yàlla jullu ci yoon yàlla Mouhamed. Mhm. di am contentement ak mbégte ci lii nga ma defal nii. nga xamante ni dañ ko war a pëlloo rek toog waxtaanee. Mhm. jamono waxtaanee àdduna waaye waxtaanee li nga xamante ni si tey. Mhm. mooy doxal réew mi. Mhm. di jëf. Père Mbaw dañu lay wax euh, papa Sidi Diop. déjà sa diggante di Diop. waa xam nga Sidi. sunu borom moo nu boole. yàlla mooy boole jaam. Sidi bi muy nekk tout tànk. yàlla dogal mu ñëw géejawaay. macha allah de xale boo xamante ni si tamit xale bu am avenir la ci gis-gis. muy jàng ànd ak Pape Bara ak benn booy bu ñuy wax laat mhm. laat moom seen xarit la woon mhm. laxat di booy bu baax ma koy nuyu de passage mhm. eh, di ko ñaanal mucc ko ànd ak xeewal mu ànd ak jëkki ak ku mel ni Baye Niass xale yooyu suñu boroom dogal rek booy bi gis ma comme dégg na ma sama tur ci wàllu showbiz wàllu mbër wàllu xam nga mu ñëw rek laxasuma ni ma man yaay sama papa parce que dama la gis xam naa ni sunu borom moo dogal sa diggante ak xale yi mhm. xam naa ni loolu yàlla la mhm. te man xam naa ni maa mujjee feeñu ci sama diggante ak yow waaye man moom mhm. dama bëgg a doon spécial ci yow man nag damay woy ma bëggoon nga jàppale ma te yàlla tax mu ne ko yow looy woy mu daal ni der ni ay bu ma siiwee médias yi bind ci man journaliste yi bind ah, gars yi noon yi commencé soppe yi commencé ma ne ko wax booy yow xanaa sëtu Njaga Mbay nga mun naa mhm. ne ma déedéet mhm. yàlla daa dogal man awma sax mbokk muy woy mais suñu boroom a def ci man ay woy mhm. ma bëgg ko te yàlla tax te comme yàlla dogal na ni maa ngi gis ni yaa ngi ànd ak caat sekk ak yeneen woykat yi ma bëggoon rek fi nga yóbbu gaay rek nga jàppale ma ma àgg foofu ma ne ko loolu du problème mais ñu doxal moom it muy booy boo xamante ni soo ko xoolee ci commencement am doxalin bi muy doxalee. ak mhm. fit bi mu àndal. ak mhm. ak ak diinjeeg osé gi. Mhm. très rapidement dalay lay daal di jox ni kii ngay kii wax ak yow nii. maanaam euh, dafa sam sunu mbokk yi. ci ni ma ko mën a waxee rek. ci mu gën a rafet. mooy dañ ni bu ñuy sànnente xeer. daa am fu ñu taxaw. léegi xale bi avenir bi mu sentir ci boppam. dafa mel ni dañ ma ko branché. ma xool ko. xool deful maam mu mm-hmm. woy ma dégg ko. Mm-hmm. ak tempo ba muy woyee. Mm-hmm. ma xam ni xale bi macha allah xale la waaye avenir la. ma ne amul problème. danaa la jàppale te yàlla rek tax. di ñaan nag li nga xamante ni sii mooy yoon wi nga jëm. yàlla na leer nañ ñii nga àndal. ñuy say ay moroom. lu mën a am ci àdduna. foo dem bu ëllëgee na nga leen fu yóbbaale mhm. lu mën a am mhm. ndax yéen a jutoondoo yarondoo mhm. bi nga jógee Tiwaawan ñoom nga dëkkal vraiment moom it mu ànd ceeg ñoom ànd bu rafet ànd bu sincère ànd boo xamante ni si ba léegi nii lu leen lu ñu mën a am ci àdduna xale yooyu moo leen ko gënal fi mu ko firndee la dëgg dëgg dëgg dëgg mooy seen premier voyage di dem France ñu ñëw am problème problème am. Mhm. problème am bi mooy xale yi comme yow yàlla dogal na ni man damay ànd ak DJ Yves. Mhm. maa ngi moom ñoo bokk émission guddi gi. Mhm. di liggéey mais DJ Yves dafay dem France il faut ma dem France déedéet non. Euh, xëy na yëfi xale jàpp leen. fi mu ne fépp bi ñu doon fépp sax pour bëgg a dem France am na ñoo xamante ni amaana bu ñu amee carte sax. bañ ko amee yàggul. kon passeport ñëwagul. visa ñëwagul. leneen ñëwagul. mani Euh, lu mën a am ci àdduna mhm. na ngeen xam ni avenir ngeen mhm. lii bu mu leen dalati mhm. mu ne ma papa ma ne ko ah mu ne ma sama sama sama sama doomu ndey yii dama bëgg nga fexe nu ma déggoowaat ak ñoom fi mu ne sama xol bi dafa mel ni góom moo ci ne ma ne ko lu xew mu daal di ma damaa xamul lu dul ñoom te c'était la première fois may soog a voyager te comme dama voyager ñëw maanaam ñoom ñu jàpp ni ñoom ñëpp war nañu mën a dem ba problème am ci. Mhm. su ma bala maa mën a lekk wala ma mën a tëdd nelaw. Mhm. na nga fexe ba ñoom ñu dellusiwaat ci sama keppaar. Mhm. ñu àndaat bokk ndey bokk baay. barke Seydina Mohamed. macha allah foofu ca kër Baye Niass. Baye Zal mi ngi toog ma koy nuyu de passage moom it nit ku baax la. ndax ku ku yàgg sonn ci xale yi la. kon foofu buñ fi jaaree. sii déet di ku am kóllëre sama côté nag. Mhm. bu dee dëgg nga bëgg a dégg. Mhm. day am ku am kóllëre ci sama côté. Mhm. ndax kóllëre gi mooy. ku bàyyi Sidi Diop Père Mbow. mbaa xam nga ni noo boobu ci tur ci làmmiñu Sidi Diop la jógee. Père Mbow Père Mbow man ñi nga xam maa leen mag Père Mbow lañ may wax. ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ma mag Père Mbow lañ may wax. ba ci sama yaay ja ajar jayna ba faal. du ma ni sax Mbow. Père Mbow rek la may wax. comprendre nga. Père Mbow rek la may wax. léegi nag per jooju mu may wax noonu. Mhm. moo waral yàlla sunu borom def ci barke ba nu agsi fii ñu agsi mhm. waaye bu dee dëgg nga bëgg a dégg. Mhm. mooy siidi e, xale la boo xamante ni daal man xam naa ni nit ku osé la. macha allah nit ku gëm boppam la. macha allah sànq yaa ngi wax ba tudd Thiat Seck Thiat itam doon doomu géejawaay ñu mhm. gis fan yi nii mhm. euh, Wally Seck may ko oto. Mhm. mu nekk lu ñëpp rafetlu. Ah, artistes yi wax nañ ci ñu su bëri wax nañ ci. ndax nga en tant que yow Pape Sidi Diop. Euh, dinaa ci sawar ci wax ci. man ku kull ku may àndal ci àdduna ci wàllu musique. wala showbiz. su ma la xamee caat moo tax ma xam la. Sidi Diop mi bi muy door a ñëw. caata ku jëkk jox micro. di ko woyloo bu demee bu amee mariage. mu ñëw bëf ci kawam. di ko aw ca gannaaw. Mhm. ak mbooy ma jaaga mi nga xamante ni tey mhm. moom nga war a invité. Mhm. comprendre nga li ma la baax. mais dama lay wax tuuti ni la. man lam yaskuri naas laa yaskuri laa. ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. mais avant tout jërëjëf Wally Seck. ndax dafa def loo xam ne acte boo xamante ni si banlieue la ko defal. mais géejawaay la ko defal surtout. xam nga boo déggee comme li nga wax léegi. muy wax bu am solo. Euh, artistes yi di ci wax mbër yi di ci wax. Mm. mag ñi di ci wax naw ñi di ci wax. Mm. loolu bu bu boo déggee ñu koy wax lu baax moo tax ñu du ko wax. Mm-hmm. parce que Wally su jaat demee soirée mm-hmm. mu jox ko micro. Mm-hmm. daw jàkkaarlook moom teral ko. teraanga ju ñëpp di wax. ñu yaakaar ne fa lay yem. caat retourné jël micro bi ni ko Wally mun maa mun ko lii neex na trop mais su ma sañoon. Mhm. da ma sagal siggil ma. Mhm. ndax yow su ma rakk nga. Mhm. sama soirée bi may joué five. loo jàppoon na ko bàyyi te ñëw. waali ni ko ci kàttanu yàlla danaa ñëw. nan la ñëwee bi mu dikkee li waali jëkk a def. mooy avant muy dugg ci biir. nit ñi mu romb ci biti. la ñëw ba ci guichet bi mu ni ko. kull mhm. ku taxaw ci biti. Mhm. na ko na ngeen ngeen leen daggal billet. Mhm. mu ñëw. da nga wax ma ñaata la somme bi. ñu waxtaan ci. kon bu loolu amee. ñun ñooy doomu Baal Yasar. nekka ak caat muy suñu rakk. bu dee dëgg nga bëgg a dégg. mooy dinan gërëm waali dinañ ko sant waaye dinañ ko ñaanal mucc gu ànd ak xéewal. mbir nag ndox nag du bàyyi yoonam. coon sama baay. waaye jaagaay sama yaay. ay baaxkat lañu. Mhm. moom su juddu woon mel neneen. Mhm. danañ jaaxal. Mhm. kon waali daal maa ngi koy ñaanal. fi mu jëm yàlla na leer naññ. ci daraja yonant bi. ndax mun na jàppale nit. am na yërmande ci doomu aadama yëg na nit. am na gëdd boo xamante ni sii. ni ma gis mu nuy doxee. nit ku baax noonu la war di doxee. ndax li nga xamante ni sii tey moo ci ne da ngay xool imaginaire musicien Wally si ñu jëggaani leen mhm. duñ ko ñaani fen mhm. duñ ko yalwaani fenn mhm. duñ ko topp fenn bañ nañ ko ba maanaam ñoom waali bu joué sax dañu am problème mu génn ndax la leen waali tamal kon su defee lii lii caat tey DJ Yves euh, nga jàkkaarlook man jox ma sa micro muy sunu people ma war cee wax li nga xamante ni sii mooy li ma yëg ci sama diggante ak Wally Seck ndax li mu defal caat sekk kontaan naa ci. Mm-hmm. di ñaanal télévision bi. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla ful. mu doon ay télé télé télé. gis naa nag liggéey bi. Mm-hmm. rafet na. boo duggee ci YouTube bi. soxol du tàng. soxol dana neex. ndax sunu people. suñu borom daa dogal DJ Yves mi nga xamante ni mooy DG bi. Mhm. dafa xam ñi nga xamante ni si ñoom ñoo ëpp talent ci réew mi. Mhm. mu yëkkati télévision bi teg ci seen loxo. Mhm. interview boo ci gis rek sa xol bi day set kon ñu ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di wax ni daal Wally Seck. chapeau ñu ngi lay ñaanal. sa yoon yàlla na leer. bonne continuation mm-hmm. yal na la yàlla defal jàmm mm-hmm. di ñaanal sa baay ba yal na yàlla yokk ay leeram mm-hmm. may wax na nag DJ Yves sama mag yi gaañu maa ngi koy ñaanal foofu laa waroon jëkkee muy Moussa Mbow ma nga gaañoo ca Gàmbi maak moom ñoo bokk benn baay jeudi bii di ñëw lañ koy saraxal yal na yàlla yokk leeram ci darajey Seydina Mohamed moo ma yar moo ma yiir moo ma yërëm lépp lu nekk ci man moo ma ko defal jërëjëf DJ Yves jërëjëf Père Mbow Thank you.